لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم asalaamaaleykum mbokk yi bu ngeen déggee loolu am na lu jib di sant yàlla bu baax di julli Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk nag fii ci Daaru Gay nga xam ni fii nu nekk mooy kërug alxuraan fii nu nekk alxuraan ko sanc fii nu nekk fa tubaarakallaahu ki nga xamante ni bii mooy Baye Gueye nga xam ni dafa mën wëllëre ak El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh El Hadj Abdou Aziz ñëw fii fii nga xam ni mooy daaray alquran am fi ay fan wane ginnaaw aa ki nga xam ni nag moom la fi bàyyam bàyyi wax dëgg yàlla waxuma la duble waaye da koo triplé da koo ñetti ñett kooku mooy kan mooy Maodo Gaye fa tabaarakallaahu mu nekk fii nag yor daara yi di taal daara yi taal jàngu yi maneeg dëkk yi fa tabaarakallaahu ko wër ci tund Mbambilor gii nga xamante ni bii ku ci nekk am naa ak yow relation bu baax ku ci nekk séq naa ak yow ku ci nekk yoroon la sa doom ba mu wàcc alquran kooku mooy sëñ Maodo Gaye fa tubaarakallaahu ah, di ñaan yàlla fanam gudd tey jii nag la nga xamante ni bii moom la jaglil tund wi jiital ci bàyyam bu tedd ba muy bàyyi ga yal na yàlla dotti leeru àjjana ci seen biir bàmmeel ak ñi nga xam ni ñooy mag ñi nga xam ne dañoo wër tund wi te nekkoon fii tubaarkàlla te dëddu ñu boole leen genn ñaan muy ñaan ki nga xamante ni bii moom lañu ñu war a def le 7 janvier ci kàttan suñu borom. ñu di ko jagleel ki nga xam ne doom xarit soppe taalibe ci kër gi muy kan muy monsieur le ministre Omar Gueye maire de commune de Sangalkam di ku yàlla baaxal di koo xam ni doom la ci kër gi ndax nag ba Baye Gueye daa dund dafiy ñëw bi Baye Gueye dëddoo it bàyyiwul njabootam ak kan ak ki nga xamante ni bii nag fa tabarakallahu mooy le premier magistrat de la ville mooy monsieur Ndiagne Diop nga xam ni mooy maire de la commune de Mbambilor di nit ko yàlla baaxal at mu jot saa yu ñëwee tubaarkàlla macha allah dafay mat sek ci taxawaayu citoyen waaye nag ci taxawaayu premier magistrat député assemblée nationale ci bés bi nga xamante ni bii da daan day am at mujot jot moom la daal bi na bés bii mi ngi ko ñëpp képp ku naan ashuran laa ilaha illallah waa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi Maodo mi ngi lay invité ci bés bi am kew-kew bu mag bu ñuy waajal nga xam ne ñu koy wax xadara di bés boo xam ne bii bésu ñaan lay doon mu ngi am la 7 janvier fii ci Daaru Salaam Gaye nga xam ne dongo yi nga xamante ne bii ñoom ñoo fi nekk lim bu tàkku la amul benn dongo boo xam ne bii da nga yelwaani wala ngay dem to ñu ngi koy yëgal mbooleem ko xam ne kii jullit la waaye maa ngi fàttali ñi nga xamante ne bii seeni doom dafa nekk fii ci daara ji ñëpp nañu préparé waajal bis boobu auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi dolli sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi bi ñu fekk waate bis bii yàgg nañ koo fekkee ci fekki nu rafet ñu nag ñoo ne fii ci commune Bambilor wër dëkk ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër a ji ñu doolee sant bu baax a baax a baax baax a baax parce que Baye Gaye bi mu fii ñëw fii fi la ñu fekk bi muy toj fii fi la ñu fekk nekk fekk doomam ji waaye booba alxuraan xawoon na fi tumuranke si suñuy doom waaye fi mu nii suñu doom yi nga xam ne ñu ñu wër fii yëpp sant nañu yàlla bu baax a baax a baax mbokk yi di ko yëgal nag kilifa aada yi di ci jiital le président de la république son excellence monsieur Macky sal di ko yëgal nag ki nga xamante ni bii ci dëgg-dëgg mooy ndey daara yi mooy kan mooy Marème Faye sal kon daal duñu sori dañuy jox ki nga xam ni tubaarkàlla di ñuy ñëpp waaye mbokk yi boo gisee ni ñu toogee ak fii ñu toog nii dafa am lu xew loolu xew moom la leen di wax comme ni ko sama mbokk yi wax léegi moo ne dafa am bis boo xamante ni moom lañ dëgmal muy la 7 janvier muy bisu xadara mu bisu ñaan yàlla suñ boroom ñaan goo xamante ni bi jàmmi réew mi la ak jàmmi gox bi ak jàmmi daara ji ak jàmmi dëkkandoo yi bis boobu nag moom lañu jàpp muy la 7 janvier incha allah soba yàlla di ko yëgal tund jandeer di ko yëgal président bi di ko yëgal ñëpp di ñaan yàlla suñu boroom ñëpp teew ak incha allah yàlla waaye nag mu am lu ci bees lu ñuy wax innovation mooy daara ji ku xool daara xam ne am na mbooloom jumaa daara jooju tey mu tabliraat ne dinaa ko yokk teg ci xeeru jumaa insa bu sooba yàlla bis boobu nag li tax alaaji Malick Gueye am fit ne da koy def teg ci xeeru jumaa papaam moo ko noonu boo demee ba war koo def utal ñaari birig nga kole ko te ne yàlla bàyyi naa laa mbir mi lii laa am la ca def yaa koy mottali moo tax am fit kon moom am na ñaani waajuram am na ñaani sëriñam am na ñaani kilifaam di jëwriñ fi ci gox bi kooku moo wati bis boobu waaye bis boobu nag mu jagleel ko ay kilifa yoo xamante ñoo fi nekkoon nag suñu waajur Alaaji gi Tamba wóllërante woon ak ñoom boo tuddee da ngay juum moo ay kilifa yu dëkkoon ci gox bi ay boromi diine ay boromi xam-xam te génn àdduna Maodo ne incha allah ñooñu jëlaat na boole sama waajur ñoom ñëpp ñu boole leen ñaanal incha allah soxla di téeméeri. kaamil ak fukki kaamil ak ñeent moom la fas yéene jàngal xuraan jagleel ko way juróom boobu waaye jagleel ko képp koo xam ne kilifa diini nga woon nekk ci gox bi te génn àdduna ah mbokk yi bés baa ngoog kon ñuy fàttali nag ñi nga xam ni ñooy sëriñ daara yi fa tabaarakallaahu di leen ko yëgal ak seen i taalube